xam nga ñaari korité daan na am ñetti korité daan na am benn itam daan na am bien que ci jamono yuy mujj yi nii am benn korité jafe na kon yàlla su doxalee boppam nga xam ne nit ñi ba ñuy oor ooru umandoowuñu ci benn bés ñii dañu um altine ñii om um talaata su ñu demee nag ba nga xam ne yàlla ci xereñam moo indi loolu ña umoon altine ak ñu umoon talaata nar a bokkandoo benn korité loolu yëfi yàlla la ñu ko koy sante di ci am mbégte lool bu baax a baax a baax a baax a baax. ak ak bég mbégte lay doon ci Sénégal wane ne Sénégal kat euh, du caaginu seen tàggalikoo gi ak bañante la seen tàggalikoo gi ak soxorante la waaye xañ na ak réeroo lay doon ak ñàkk waxtaan sa dañuy wax ne euh, ay nit bu ñuy waxtaanee maanaam nañ ko nañ ko nañ ko. mën nañ ko pàccoo goo gis nañ ko waxtaanee moo ko jiitu bu ñu waxtaanee rek di déggoo sa yaakaar naa euh, bu ñu bàyyeek suñu bopp suñu borom subhanahu wa taala mën nañuy àtte ci àtte bu rafet rafet rafet.